waaw au milieu. ma wax tuuti rek. remercier xaar xaar xaar xaar xaar suñu collaborateurs yi. Ah, donc bien voilà. il n'est pas descendu parce que pas tout le monde parce que mën ak directeur bi mais ñoom nee nañ def ko lu bees ba toog mais peut-être am na. merci beaucoup. bonjour à tout le monde. Euh, bienvenue à cette cérémonie de couverture de la passation de service entre le ministre Mambaye Kagnan, ministre sortant, ministre euh, sous la supervision de DG Abdoulaye Tchad, les deux ministres ont échangé les dossiers. Ils ont passé en revue l'ensemble des dossiers et instances et se sont accordés sur le dossier, donc paraphé et signé le document de supervision religieux. Et donc je voudrais vous dire que la passation de service s'est terminée dans de bonnes conditions. Monsieur le ministre, je voudrais vous laisser la parole en tant que ministre sortant pour faire votre discours c'est-à-dire et de remerciements. On laissera la parole au ministre en nom. Je vous remercie. Merci beaucoup. di sant ñëpp di wax ni que ngi sant tamit euh, le ministre du tourisme et de l'artisanat bu bees bi ci taxawaay ci njëkk taxawaay bu rafet bi mu am di wax ni que euh, ñu ngi gërëm waa bi yëpp gërëm directeurs yi fi nekk yëpp gërëm personnel bi yëpp ñu ci mës a ak ñu ci mës a gis wax ni que euh, def naa tey fukki at ak ñaar ci nguur di wax ni que fukki at ak ñaar yooyu yëpp président de la république bi génn nommé na ma juróom ñetti yoon baax na ñuy fàttali 2012 président de l'autorité la ma nommé 2013 mu nommé ma président conseil d'administration AIBD 2014 mu nommé ma ministre de la jeunesse de l'emploi et de la construction citoyenne defaat gouvernement nommé waat ma ci même ministère mu ñëwee ci dëkk ma jógee fa mu nommé ma ministre du tourisme ci yoon bu njëkk ma jógee waat fa mu nommé ma ministre chef de cabinet du président de la République mu nommé ma ministre du tourisme et des loisirs ma jógee mu nommé ma ministre du tour des sports et du tourisme ñu sant na bu baax di ko sant moom président Macky Sall di ko sant ci kóolu tëj di wax ni que def nañ suñu kéemtulaay kàttan pour jàppale ko ci gis-gis ak yéene ñu amoon Sénégal jéem nañ ko taxawal fépp fu mu mën mu doon egg donte xëy na matériel tey yàlla def na jeexal tey yàlla tàbb na ci bopp réew mi beneen nit beneen équipe monsieur Diaw bii bokk ci li am ci réew njariñ réew mi ak li réew mi doxe ak li réew mi nar a jëm yàlla ci seen i la ko teg yàlla leen yàlla kàttanal dooleel leen ba lépp lu ñu wax ak askan bi duñ ko matal liggéey bii nag liggéey bu yomb waaye ki ma gis ki ma waxal léegi am naa yaakaar yaakaar bi sénégalais yi am ñoom yàlla bu ko yàlla tas di wax ni liggéey nañu fukki at ak ñaar ci dëkk lu bari am ay ñu ngi yàlla ba ñu ngi génn xel mu dal xel mu set xel mu set wax dina mën na bari lépp solo mooy liggéey wax ni lu mu xum xum xum xum donte dina yàq sa attention donte dina la yow sën na nga liggéey parce que bis dina ñëw li nga bëggoon fee li waroon a génn génn waaye ala kulli xaal yàlla rek moo yor tënk ci moo koy donc yàlla na ci yàlla dimbali euh, euh, xëy na bëggoon naa wax leneen ci man tey bis ni ki tey suba dama ci liggéey pour sama bopp te jàpp naa ne liggéeyal naa sama nekk ànd ak président la ci biir amoon na ay jamono yoo xam ne yu neex la ñu ñëpp ñu mënu amoon na ay jamono yu metti tamit ñu ñëpp ñu mënu maa ngi gërëm képp ku ci jàpp mhm. maa ngi baal àq képp ku ci boole mhm. waaye di fàttali coow lu mu bari bari bari bari dëkk bi la fekk coow li bu gënoon a sonal nag ci wàllu tool mooy jël na jël na projet jël na projet jël na lii jël na la mais yéen mosu leen a dugg ci wax loolu parce que ay fonctionnaire état du Sénégal yéen mosu leen a ñëw proposé ma dara ci loolu ndaxte mosu ñëw seq politique liggéey lañ seq ca réew mi donc vous avez eu le mérite de faire départager la fonction ministérielle, étatique, républicaine et la fonction politique du ministère bi am war a dépendre leader war a dépendre gis-gis tey bokk nga ci ñu war a dépendre gis-gisu président Diop tey bokk nga ci ñu war a taxaw ci gouvernement bi taxawaay boobu xëy na mën na bokk mais di ñaan yàlla rek muy leeral li gën a metti ci li ma dund loolu dund naa ko ak metti mu jàpp sama njaboot samay wëy samay donc soxla yi peut être mënul liggéeyal loolu mais da koy mën a appuyer ak bés bu nekk gën a métti ci loolu mooy am wéyal boo xam ne dañ ko xam ci biir muy jàngalee ñu gën da ngay sàmm sa njaboot da ngay téye sa njaboot da ngay yar sa njaboot da ngay def ci loolu bu nekk ci loolu ci diine ñu jël taawam fekk loolu alhamdulilah lépp lu dëgg yàlla moo ko wax lépp ci dëgg yi donc inscrire leen leen leen jàppale leen leen mooy jàppale leen ak lu nit kon kon kon ak lu nit bëgg ak lu nit bañ ñoom te yàlla jox réew mi yàlla la ko ci nation bi pour attaqué may leen leen ñu di sénégalais def ko parce que loolu mooy njariñu réew ci wàllu bii ñu nekk ci tourisme bi may wax ko xam te li tax may woote tamit dinaa ko wax ci wàllu bii ñu nekk ci tourisme bi ci ëpp nit ñi ciy def seen xaalis def ñu ci xaalis bu ndaw ay investissement bu deux cent millions de dollars lañ ko ay investissement trois cent millions de dollars lañ ko ay investissement bu quatre cent millions de dollars lañ ko loolu mooy téye koom-koom ñooñu ñun ay sénégalais yi ñu ci ëpp ñooñu bitim réew lañ nekk gis réew mu dal gis réew mu jub gis réew mu amul coono mooy indi kóolute ñu indi seen xaalis te moom neewuma secteur bi ñu ko dénk nii mooy secteur bi ci ëpp solo waaye mënoo génnee ci secteur yi ëpp solo yi dundal koom-koomu réew mi mënoo ci wàññi ñett te doo lim ministère de tourisme ay ñoom ci ay investissement yoo xam ne ay privé nit ñu yor seen xaalis am yéene defal Sénégal yàlla na yàlla may kàttan. ak may ñu nekk ci dal. donc investissement yooyu yaakaar boobu noonu ngeen def. donc loolu moo tax ñuy ñaan bu kenn bu kenn attaqué réew mi président Macky Sall dafa indi jéego moo xam ni ba koy def lu bari dañu contrôlé amnistie man jàppale woon naa ko ci dama ko ci jàppale te tey jamono yu wëndeel mooy ñu jéggi. benn problème président bi ñëw nii dafa bëgg réconcilier Sénégalais parce que réconcilier Sénégalais mooy indi dal boobu ba nit ñi ñëwet indi seen ñi ñëwet indi seen alal bu ñu ñëwet indi képp kuy Sénégal ñu liggéey ci loolu képp kuy Sénégal nga fexe réew mi dal ku bëgg opposé wu am nga droit nga dem opposé mais fii ñu toll nii nii nii nii nii réew mi si tool fii ñu toll nii nii nii nii dalal xel ñu bëgg a indi seen xaalis balal indi ñu liggéey dem ci ñoom donc ñu ngi baal ñëpp donte métti diis na leneen am na ñu ngi baal ñëpp parce que allah kulli aar lépp dina la bari allah kulli aar alal askan wi dañ ko war a ñoom allah kulli aar yëpp ku def dara du wàccoor yoon yoon dafa war a def mais ñu teg ko ci dëgg ci ngor ci jub keneen ku nekk ci leneen rek ci sa coobare bopp nga nekk keneen ku nekk ci leneen rek ci sa xalaat bopp nga nekk te réew mi fii mu toll nii mënuñu éviter l'éclosion àdduna bi yëpp taxaw ñu wax ni que Sénégal day toj Sénégal day def leneen Sénégal day def yàlla baaxee ni transmission de pouvoir am jàmm ak salaam wéyal leen loolu moo gën mais tamit ñu sàmm alal bi liñ jëmoon démb monsieur le ministre mu bàyyi ma tuuti ma wax ci sama politique li ñu daloon démb li ñu waxoon démb moom la ñuy wax tey moom la ñuy wax suba ku ñu dénk dangaa war a rendre compte ku am rapport askanu Sénégal danga leen a war waxi waasu waxi kii waxi division waxi nord waxi sud waxi est ñun loolu jiguñu te baaxul ci ñun et bu ñuy waxati ñu yàqu ñi fi yàqu bu ñu leen seen bët ñu xool mais na wax ji na wax ji jub na wax ji maan kenn si ñu seetaan ñaanal leen mu réussir parce que bu ñu réussirul du ñoom yéene leen ñu wàññi dund wàññi ceeb wàññi diwlin wàññi leneen mais ñu bañ a dugg ci ay wax ak ay problème loo xam ne day visé nit ñàkk gën loo xam ne ala kulli loolu laa bëggoon a wax remercier leen encore une fois waa ministère bu gis naa ni quelques personnes yoo xam ne xaw ma kan leen wax ngeen ñëw peut-être ci wàllu politique la loolu bu ma wàccee ci seen dinaa wax ak yéen mais di ñaan rek ni que jàpp leen ci njëriñu Sénégal jàpp leen ci pour njëriñu askanu Sénégal jàpp leen ci pour jàmm Sénégal dama wax ji rafet dama wax ji rafet nit mën na def lu su dul noonu te loolu du ci kaw pro-publicisme. Moi, je crois à la justice. donc nañ bàyyi Dakar ñu liggéey moo jot ñoom am nañ ay projet yu taxaw yu war a eggale ñoom ñooy tànn en fonction de seen vision politique mais ñu bàyyi leen ñu liggéey bañ a nekk ŋàññante attaqué wax ci sa sos loolu lépp jënd xëccoo politique bi jeex na ñoom. ñi bëgg ci sénégalais yi ñoom lañ wóor topp seen tànk ñu ne ñu dem organiser wu si bañ a nekk ñu wax yàq di tas politique en tout cas jàpp naa ni réew mi foofu moo gën ci ñun di ëpp ci ñun ay woyu doom lañ Sénégal chance bi ñu am mooy yàlla dafa dafa defoon chance bu kilifa diine yi rek le problème yu dëkk yëpp di am. loolu moo tax bu demee ba ci yàgg ñu naan ñu ngi toj yàlla def mu set. kilifa diine yi yàlla dafa jaarale woon ci ñoom mu réglé problème boo xam ne moom la dëkk yëpp di am ngay gis boo demee Touba sëriñ bi day am jabaru dugub la am soxna njaaru am soxna joola am soxna beneen jël doomam mais mbir ki laaj jël kii lépp ñëpp jaxasoo ku nekk des ñu dund ci nation loolu mooy la nation sénégalaise dinañ ko conserver. juróomi at yi tàllal alal nit di ko politique jotee ñu war a liggéey liggéey liggéey ak xel bu dal nga xel bi dalul ñeneen ñi ñu indi seen alal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sama xarit politique yi naa leen tàggu ci suuf mais di remercier monsieur ministre ak ñu mu àndal bu baax xam ci mu ci gis nga xam ne yàlla def na ma liggéeyoon nañ ñun avant loo xam ne wàllu politique yàlla def na mu seqal ak ñoom avant lu dul wàllu politique ma xam ne leen dëkk maam ak jub donc ñoom ñoo ko rafet di la sant di la gërëm di remercier ñi tamit ñëpp je vous suis distingués invités. Je voudrais, avant temps pour propos, rendre grâce à Dieu, remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président la République, Bassirou Diomaye Faye, et Monsieur le Premier ministre pour cette confiance placé en ministre du Tourisme et de l'artisanat. Permettez-moi aussi de remercier ma famille pour le soutien constant dans toutes mes entreprises. Je tiens personnellement à remercier Monsieur le ministre Mame Mbaye l'ensemble du personnel du ministère du Tourisme <coughs> abattu sous son magistère. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui emprunte de solennité s'inscrit dans la pure tradition républicaine de passation de service et marque un nouveau départ pour relever de nouveaux défis qui s'afficheront devant nous. <coughs> J'en appelle à la contribution de tout un chacun pour qu'ensemble, comme un seul être, nous travaillons davantage à la promotion et la valorisation du tourisme, avec l'ensemble des acteurs et partenaires du secteur. Nous identifierons ensemble les modalités pratiques et les procédures opératoires pour y parvenir. C'est sur cette note d'espoir que je remercie de votre demande attention. asalaamaaleykum di ñun ñëpp di sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di remercier euh, monsieur le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre euh, Ousmane Sonko. lay merci. remercier sama njaboot remercier collaborateur yëpp eh, di naan rek gouvernement bi gouvernement de l'État au gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple di leen invité ñi ñëpp tous les collaborateurs ñu liggéey pour que ce projet là aboutisse dans la paix et dans la concorde Merci beaucoup. Merci. Thank you. sommes euh, devant le ministère di xaar ministre mu ñëw. surtout di xaar ministre bi pour euh, def euh, def déclaration voilà mi ministre mi wàcc ñu xaar mu def déclaration de personne bu ko defee ñu ñu ñu ñu waaw non ministre Mame Mbaye Niang mi ngi wàcc léegi euh, pour euh, oui allo oui oui ça va bien. ah booy dafa sa dafa sa laaj continué sa laaj. waaye ça va bien merci. waaw maa ngi koy yaa doon répondre jë jërëjëf loolu du dara.

voilà comme ni ngeen ko gisee nii dangay ngi xaarandi kii di le ministre Mame Mbaye bi nga xam ne tey moo jox la ngay kii di le ministre Mountaga Diawo fii ci ministère bi d'ailleurs d'ailleurs jox nañ d'abord li nga xam ne def nañ seen passation de service ba pare waaye léegi nag mu desandi nga xam ne mooy le ministre mu génn. Euh, ñibbi këram ndax nee nañ def nañ seen service bi def na discours ba pare boo déggee discours am bii le ministre vraiment à remercier son personnel ki ngeen di gis nii nii muy ñëw mooy c'est le DG. le DG. sur le dégg ngeen discours am bi discours boo xam ne vraiment c'est très touchant xam ne yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci li nga xam ne moo jëm ci waaye. El Hadj voilà nii ngeen ko gisee nii ñoo ngi nii di ñëw micro lay jël ci kaw voilà c'est le ministre moom mi nga xam ne moo joxe léegi ndenge yi Mbacké la Dakawa Dakawa moom la Dakawa ah, man may El Hadj day jël micro day waa Dakar waa moom loo bëgg a xam yow xam naa ay rapport nga may laaj. li ma tontu. ma fay laaj kon yaa ngi laaj nit. waaw. kooku paasam ngi réer. garaaw. baa ngi fi. ñu ngi ñëw. ana caméra ana caméra. loolu la woo ko raay ma. Fatama Fatama. caméra bi. c'est que nag taabaan mënoo feeñ. après nga may fi nekk rek. ay waay lii la fàtte woon ci kaw. mais ñii dinañ ko may. dinañ ko may dinañ ko may. mu ngi ñëw waa set set teer. waaw waaw mooy gën de. je pense que mooy gën comme ça. ñu naan coupé coupé en tant waaw xaaral waa kay waaw léeg-léeg nañ gaaw man damay def. tey di nga noppalu nag. des nga ma soog. ah damay.

Shukran daa doon booy jàpp na ko booy nga xaar rek. dama nga accès dama nga accès. ak Euh, suivant la déclaration de presse euh, du ministre euh, Mame bu ñu paree ci def passation de service samedi ñu déglu ko mu dafa war a def benn déclaration de presse ñu ngi ci buntu ministère du tourisme euh, buntu ministère du tourisme lañu la ñu taxaw ni mi ngi noonu bàyyi na ministre entrant bi ci biir moom mu génn ci biti Euh, daanaka mën nañu ne euh, day def euh, sa sa déclaration de presse mais nañu ko def rapidement voilà nañu ko def rapidement voilà ñu def sa sa déclaration de presse ñaari question la ñaari question allez-y allez-y maa ngi seen confrère yi ñu installé si yoon la quoi. voilà ñu déglu ko ñu euh, sa déclaration plus rapidement. xam di rappeler rek ñu nekk fii ci ministère bi. nekkoon ci passation de service après Ndeye Mbaye ñu ngi soxla ak euh, ministre en trop. c'est bon oui c'est bon. c'est bon yow. c'est bon ok. Macaire allez-y ñun ñëpp Macaire allez-y. non man ñaareel deux questions. deux questions. non oh, man man man bàyyi bàyyi bàyyi Macaire demal. Macaire allez-y Macaire allez-y. caméra caméra. c'est bon dina wax. Maguette, allez, vas-y, pose ta question. C'est bon. C'est bon. noo jël couscous. ñu ne ma. monsieur le ministre, venez juste de de sortir de votre prestation de service. Quel est le quels sont les mots dont vous voulez lancer à cette équipe qui intéresse Bonne chance, bon vent. Notre réussite euh, devrait être la réussite des Sénégalais, du peuple sénégalais. Priez pour qu'ils puissent euh, entamer les engagements, c'est-à-dire euh, de la vie, donner des emplois aux jeunes, assister le peuple dans les plus brefs délais. Bonne euh, monsieur le ministre, euh, il y aurait un rapport de la Cour des comptes qui vous blanchit sur l'affaire Prodac. Êtes-vous au courant de quelque chose? Euh, comme vous. Euh, donc je pense que je l'ai lu et

beaucoup craignent pour votre avenir, du moment que peut-être c'est euh, grâce à vous qu'on a eu à condamner Ousmane Sonko. Aujourd'hui, il est pouvoir, est-ce que vous êtes rassuré L'avenir appartient à Dieu. Notre mm-hmm. avenir a toujours été guidé. Euh, sur les pieds la foi. faut être musulman La troisième recommandation, c'est de croire à son destin. Je n'ai jamais pensé dans ma vie être ministre dans un gouvernement pendant 12 ans. À plus forte raison, ce qui arrive. On a exercé le pouvoir pendant 12 ans avec un homme brillant, intègre, un homme ambitieux qui avait une vision pour le pays et qui a fait des résultats. j'ai eu la chance, et je pense avoir une autre chance d'être à ses côtés. On a appris, on a servi notre pays. Il nous a nommés à huit postes de responsabilité. Je rappelle toujours que j'ai été président de la haute autorité, j'ai été président euh, du conseil d'administration de l'AIBD, j'ai été ministre de la jeunesse et de l'emploi deux fois. j'ai été ministre du tourisme j'ai été ministre chef de cabinet j'ai du tourisme des loisirs j'ai été ministre des sports et du tourisme si vous remarquez l'ensemble de ces responsabilités là ne m'ont pas permis d'accéder à la ressource publique ou de l'administrer ou de l'ordonner les fonctions que j'ai occupées ne permettent pas d'administrer des crédits ou d'ordonner des dépenses pense que ça en dit beaucoup. Je demeure convaincu que la reddition des comptes est une exigence que tout républicain doit faire. La Cour des comptes a rendu un rapport, le seul rapport connu, authentifié que moi j'ai appris que j'ai, dont j'ai une copie. c'est confidentiel, c'est confidentiel, tout le monde est sénégalais pour voir. Mais je prie aussi pour la réussite. Euh, de, ce, cette équipe, de nouveau président, de nouveau gouvernement. Et je demande quand même à mes concitoyens de les donner du temps. Parce que nous sommes dans un monde où c'est la confiance qui régit l'économie. Et eux, ils ont besoin de confiance. Aucun Sénégalais ne gagnerait à créer des problèmes. Mais il faut exiger la réduction. Quiconque touche à l'argent public va rendre compte ou payer de son argent ou payer de sa liberté. Je demeure convaincu que c'est la voie juste, la voie euh, noble, et c'est la voie que le président Macky Sall nous a appris dans son équipe. dem ci wolof. <laughs> non pour votre carrière politique quand même. vous êtes vous êtes politicien millionnaire vous avez eu euh, à, ne pas côtoyer peut-être ou euh, président d'accord sur. Le... moi je pense que vous voulez me faire revenir sur ces choses j'ai une posture qui est constante. il y a cela huit mois j'ai dit officiellement que j'accompagne un homme à la fin de cette mission je prendrai mon temps ma liberté et j'irai chercher du travail ailleurs donc damay uti liggéey dans la politique c'était pas mon métier j'ai des qualifications bien voilà ñu ñëw ci wolof tënk ci wolof rek tey yaa ngi doon joxe lenge yi nga mën a yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ki waaw di sant yàlla di sant yàlla bu baax di sant euh, président Macky Sall bi nga xam ni jot na ma fal ci juróom-ñetti poste nekk naa fi président autorité nekk fi président conseil d'administration bu AIBD nekk fi ministre de la jeunesse et euh, du tourisme donc ñu ngi sant yàlla li nga xam ni moo jaarale ci président Macky Sall ndomba tànk yooyu yëpp def nañ suñu kéemtalaay kàttan ngir jubal def nañ suñu kéemtalaay kàttan ngir taxaw ci dëgg def nañ suñu kéemtalaay kàttan pour que liggéey ak yaakaar bu sénégalais amoon ci président Macky mu am tey rusuñu parce que ci fukki at ñaar amul benn sénégalais bu mën a miim li mu def ci réew mi ak li mu yokk ci réew mi léegi nag tey euh, yàlla ak sénégalais yi tànn nañ beneen président mu indi beneen équipe ñi ngi ñaan yàlla mu may leen ndam ñi ngi ñaan yàlla mu may leen euh, taxawaay ndaxte li ñu dig askan bi ñu def ko parce que njariñu lépp la lool waaye ñu bàyyi parparloo bi ak wax ci ak leneen wax ju ñaaw bu dul fenn dama koy wax parce ñaari at jàpp sàcc nga sa njaboot say rak sa jabar sa soxna jël say poto jabar daf dem indi ku nekk fële yor xaalisam ñu ngi sa jabar la su wax dëgg rek ay mujj poste yi ma fi sànq nga xam ni loolu dong laa def ci fukki at ak ñaar nii amul ci benn poste boo xam ni dinañ la jox alalu askan bi man koy mën a jël alalu askan bi ñi koy yor dañ koy xam poste yi ma lim nii yooyu yëpp doo jotee alalu askan bi ba mën cee jël waaye nag boo jiitoo dangay nangu waaye ñu xam ni que metti woon na ci ñun metti woon na ci suñuy àndandoo metti woon na ci suñu njaboot metti na ci suñuy wayjur surtout bu la yàlla nattoo nga am wayjur bu mel ni man man sama wayjur dafa bâtir réputation ci réew mi avant ñu may xam mu samp am taxawaay ci diine di wax di jàngale di xutba di conférence di wax sénégalais yi yar leen seen doom ci njub yar leen seen doom ci maandu yar seen doom ci lii ñu xëy jël taawam ni ko jël na vingt neuf man ni ma ko dunde metti na mais moom ni mu ko dunde metti na mais yàlla moo wax ci alxuraan wal asr inna insaana la fi xusr yàlla giñ na ci waxtu ni ko doomu aadama lépp lu mu def doomu aadama nag dégg leen aadama ba ci man mii ba ci yéen ñi yàlla même yonant moo wax wal asr innal insaana la fi xusr doomu aadama bépp nag yonanteeg sëriñam ñëpp ci biir lépp lu mu def perte na ko illa lazina amanu wa amilu saalihaat ba mu des ñi gëm cay julli watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sab nekk ci dëgg waaye ànd ak muñ yàlla moo wax loolu donc ñu ngi sant yàlla li ma leen wax sànq mooy li ma laaj rapport boobu am na mooy premier rapport man boog Mame ñaam bi ma gis waaye comme que nee nga ñun ñëpp ñoo ko gisandoo loo xam ne mën naa cee wax mais sama àqulaay taala damay wax ni am na janvier deux mille vingt quatre bii nii la génn mat na ñetti weer xaw ma sax lu tax ñu nekk ba tey ñu ciy wax ginnaaw rapport boobu noonu pré rapport wu rap am na laaj nañ ma ci tontu naa donte am na ñu jàpp ni liñ ma laaj sax waruñu ma ko woon laaj waaye ngir njekk ak teraanga ak wormaal ña ma laaj damay ton donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a waxoon démb mooy li ma wax tey moom laay wax wax naa fonction yi ma occupé képp ku gis këyit waxatuma sax rapport boo xam ni bind nañ ci Mame Mbaye jël na tarfatal ay ni nee naa la bu ñu ma woo nañ ko publier man maay yóbbu sama bopp donc ñu ngi sant yàlla. kon jàppal ne que comme que yaa ngi ma gis nii ma taxaw. Mm-hmm. et man rapport boobu ngay wax aw ma trois wax ci mais am naa ko am naa ñaar yëpp bu ma ci gisoon kon tey bu ma ci gisoon luñ ma ciy jiiñ wala luñ ma taxaw kon du ma taxaw fii yóbbu naa sama bopp bu yàgg. ci nasaraan nga ne reddition des comptes exigence. non déedéet dama ni euh, dégg naa président bi wax ko euh, la reddition des comptes a pour plier les organes de contrôle. les corps de contrôle IGE Cour des comptes wax na loolu mooy organe de contrôle et des comptes ci seen i rapport day mujj donc ñu ngi sant yàlla mais daal sama waxu démb mooy sama waxu tey ci incha allahu bi mooy doon sama waxu suba politiquement sa carrière waaw politiquement man gis nga ni que yow yaa ngi bëgg a wax loo si gis nga ni que tey du waxu politique nee naa réew mi dafa am période politique am période liggéey am nañu Sénégalais yi wóolu nañ leen bàyyi ñu liggéey parce que nag dal dafa soxla ci réew mi waaye nag euh, boo fàttalikoo rek man ci juróom benn weer ci ginnaaw man nee naa ki ma àndal bu bàyyee bu génnee langue politique bi ma génn langue politique bi léegi kay altine incha allah sax dimanche kay ma takk samay bagage bokku ci liggéey <laughs> ah, léegi kay bàyyi ma loolu laa ci bëgg. <laughs> ok merci beaucoup ba léegi sa mën la. ah maa ngi leen di boole bokkal. waaw d'accord.